Diourbel dafay dem ca kanam loolu mooy yéeney doomu Diourbel yi loole moo tax ñu daal di taxawal association bi di 3D Diourbel dafay dem ca kanam doomu Diourbel yi nekk fii ci réew bu Argentine sumb nañu ndaje bu waxtaan xalaat naka lañuy fexe fexee ba Diourbel dem ca kanam ginnaaw bu ñu defee sumb yu am solo ngir leeral mbeddi Diourbel yi daal di nag dëgg ma liggéey bu am solo ngir daal di fay jëlee mbalit yi ak yeneen sumb yu am solo lay tax ñu daal di defub lël waxtaane lu ca jëm waxtaan bi nag lu bare tukkee na ca. asalaamaaleykum euh, waa adduna bi asalaamaaleykum yéen waa diaspora bi euh, ñun ñoo nekk fii ci Argentine di euh, association bi nga xam ne moom lañ taxaw muy 3D Diourbel day dem ca kanam ñu am nag réunion bu mag bu ñuy def fii ci Argentine di ko def sàkka lënd bu nekk. woote bi nag du woote dara luul fas yéene liggéey dëkk ba mu xam ne muy njaareem ndax amuñu fenn fu dul njaarim dañoo jóg fa seeni liggéey njaareem te di ci woo ñëpp bawuñu kenn. di wax ñi nga xamante ne ni ñoo ñu représenté ci a ah, ci gox yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci àdduna bi. ñi ngi ciy jiital sëriñ Murit Mbacke ci Amérique ak ñi mu liggéey bi yëpp ci Amérique. Abdoulaye Ndiaye Italie Khadim Bamba Gueye France Moustapha Gueye Espagne Mandiaye Niang Angleterre Babacar Sine Bassirou Fall Maroc. Modou Mbacke Gueye Uruguay Massamba Gueye Côte d'Ivoire Moustapha Thiam Gabon Bassirou Faye Cap-Vert Bëgg Fallou Thioune Argentine Ma Seck Mali Ma Wali Niang Dakar ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp ñoo ngi soññ suñu bopp di leen soññi ci liggéey bi nga xamante ni dëgmal nañ ko muy ci diggante leeral dëkk ba ak seetal mbalit ma nga xamante ni nii moo fa nekk di ci woo mboolem koo xamante ni nii yaa ngi ci ah diaspora bi ñoo ngi la ciy woo Jurbel day dem ca kanam association 3D Jurbel day dem ca kanam ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci woo suñ mbokk yi nga xamante ni ñoom lañu ñu bokkal Argentine di ci woo mboolem koo xamante ni moom lañu ñu bokkal diaspora bi rek ñoo ngi leen di siyaare bu baax. fu ñu mën a nekk tey ci kaw suuf Jurbel lañu ko gënal waaw amuñu feneen foo xamante ne bii dinañ fa joyal lenn jëme ko fa fu dul gi ñu dëkk. lépp lu ñu amit fa lañ ko jëmee kon nag yaakaar naa ne lépp lu koy jëmale kanam ah, ku gis ni nga xamante ne bii noonu la trois d taxawe taal lamp yi ah njëkk a jënd deux cent soixante lamp dugal ko def opération safar mawlud jënd mil lamp leeral jurbel ba mu leer wala jub wala jublu ci mbalit mi ak yeneen procès yoo xamante ne bii tey jii ñu ngi ko dëgmal fas yéene cee dox yaakaar naa ne loolu nag du benn nit a koy def du ñaari nit a koy def mbooloo mooy àndandoo def ko te mbooloo fépp fu ñu ànd di xàccendoo di dóorandoo yaakaar naa ne sunu borom subhaanahu wa taala mi yore yërmande yore xéewal yaakaar naa ne du ñu seetaan. ci ndaje bi nag ci occasion bi daal di na nañu rek tàllal bépp doomu Diourbel boo xam ne rek da nga nekk ci Argentine nga daal di ñëw dagg carte membre daal di itam di participer ci association bi ngir ñu àndandoo daal di yóbbu Diourbel mu gën a dem ca kanam.